jërë ngeen jëf mbokk internet yi jamono xam rek moom Amadou Ba waaye tamit ci geneen wàllu candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar mu ngi wuy Sénégal di def akub campagne seeni ministre nag ñi ngay bloqué les opposants kaddu yi Alioune Tine dañ jiital Africa Jom Center nag nee na caravane bu Mali Gakou bi nga xam ne sax dana ko bloqué waatoon encore beneen yoon fële ca Louga ña def lu ni mel di élément yu police ñoom nag les force de l'ordre dañoo avancé rek li nga xam ne moo di motif de trouble à l'ordre public ba wara ñu daal di bloqué euh, caravane bi nu mel situation boo xam ne nag buñu sukkandikoo ci Alioune lu mu mënul accepter le benn yoon moom bi ne nag di dénoncer euh, lu muy duppee rek ay acte de discrimination yu grave yoo xam ne sax dafay menacer li nga xam ne moo di transparence équité ci processus électoral waaye tamit égalité des citoyens yi nga xam ne nag ñooy concourir à ca post boo xam ne amal na ko ci réseau social bi di X ex Twitter moom fondateur bu Think-Tank Africa Jom Center nag di xamle rek ne euh, lu inacceptable la au moment ki nga xam ne moo di Amadou Ba di def campagne am nag ay ministre am du l'intérieur di eh, bloquer waaye tamit de la défense di bloquer eh, les candidats de l'opposition di leen xëy ñoom tamit ci mën a def seen circulation euh, selon l'ancien président bu li nga xam ne nag di nee nag il faut ñu disjoindre li nga xam ne fonction de ministre ak euh, celle de responsable politique maanaam fonction ministre ak euh, responsable yu parti wala coalition de parti faaw ñu ràññale leen nag te responsable de l'État ak yi nga xam ne du parti au risque nag ñu transformer les fonctionnaires ak agents de l'État aux auxiliaires de parti wala de coalition le direct euh, moom la d'aldi Tine recommandation li ñuy recommandé nak moo di akub ñu daal di koy amal ci na mu gën a gaawee en urgence ngir nak mën a déggoo ci benn accord permanent euh, bu candidat yépp nak loole rek ngir rek euh, ñu mën a am benn droit de circuler dans le pays nak ci cadre pré-campagne bi nga xam ne moom la ñu nekk nee na nag c'est indispensable euh, jamono bi nga xamante ne nag pour la confiance aux institutions ak surtout l'organisation d'une élection crédible loole moom mi di Alioune di ko xamle ci jamono jooju yoo xam ne nag ay candidat ci opposition bi seeni caravane ñu ngi koy daal di bloqué ci yenn gox yu wuute ci jamono boo xam ne sax le premier ministre Amadou Ba mu ngi amal ay tournée jërë ngeen jëf mbokk internet li ma doon xibaar yi yeneen xibaar ci yeneen vidéo lay doon bu calande laataw la li wane di laa ki di ci seen chaîne ku dee gan ci page bi te ko ñu ngi lay ñaan nga abonné ak su ko defee lu ñu dugal ci vidéo nga bokk ñu koy njëkk